Au samedi 23 mai 2020, ministère de la Santé et de l'Action sociale Jotna, résultat examen virologique yi may waaj qui lim ci juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak ñeent test yi ñu def juróom benn ak juróom ñaar juróom benn fukk ak juróom ñaar ñoo positif ñeent fukk ak ñaari cas ci Ziguinchor ak Kédougou fukk ak juróom benn cas ñaar ci Liberté 6 benn ci Diamaguène ñaar ci Parcelles Assainies benn ci Grand Médine benn ci Wakam benn ci Mamel benn ci fas benn ci Médina ñaar ci Géejawaay benn ci Kër benn ci Mbaaw benn ci Mexe ak benn ci Caajaay téeméer ak juróom ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey fukk ak benn cas yu sonn ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñeneen ñi des ci hôpitaux yi ñu ngi tane bésu tey dale ko ci cas bi nga xam ne moom la Sénégal njëkk am woññi nañu ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróomi ñaar fukk ak juróom benn cas junni ak ñeenti téeméer ak fukk ak juróom benn wër nañu si fanweer ak ñent ñak ci sen bakken mu dess junni ak juróomi témèr ak ñaar fuk ak juróom ci suñu hôpitaux yi may fatali né Sénégal amana 30e 34e ka bi nga xamné dafa ñak ci walum Covid-19 ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi koy jalé njabotam mais jeexalee rek di fatali digle yi nga xam mom le ministère de la santé et de l'action sociale di doli di ñaax askan wi pour ñu sàmmoon mesure mesures yi nga xam moy mesure prévention collective ak individuelle ma ngi leen di sante di leen gërëm